ab du ñu ngi lay nuyu di la ziar muy goor muy jigen ay tamit picci mi point comme ni ma Ahmed maniko la bay ko ni yaram yu daal dina tang foko tek teg mu ni ma ginnaaw bi nga seyd al Hadji malik fu ñu jëm mu ni ma dakaru ay ci yow lay deglu mu ni ma nañu dug biir dakaru kan la nu fay seet mu ni ma nañu dem way deggal jaxay la muy wayu Sabah moo taxit bu jirim daal di jooy sa xel daal di dem ci almeria ca laay naaw ànd ak picc mi point com du nu tardé fenn dugg nañu ci almeeri yoo fi fekk nañu fa ki nga xamante ni nee naa leen waliyun mam sid ahmed xalimun mam sid ahmed xat xawaawul il xat mam sid ahmed wan mam sid ahmed duna ribaati ko koy doomu cheikh seydi aboubacar si ci laay wàcc foofu ci almeeri yoo fi daal di xool sama ndey càmmoñ daal di ko xool ak tëraay bu jekk ba ma ne ko yaru bi ngay dund ya yaru bi nga genné aduna jël nga sig tek nele jël alcorane tek ci sa kanam fa man kana yarju liqa rabbih ko koy mam Sidi Ahmed mu Serigne babakar bi ne riceer dan dox jor ak ndey san du taxaw fenn mbaa muy taxawaalu yor rek jay bayam ba Serigne babakar si nduróog mom lol ci retan wa ci doxine wa ci kersaga mam yalla na yàlla taas ñu ci sa barke ma nga fofu ci almeru yofi nuyu mbooleem loo xam ne na Serigne Abdou yar gi ci wayjuram ma nga ci mom dal gi ci wayjuram ma nga ci mom tabarakallah mën joxe bi ci wayjuram juram ma ngi ci mom yal yalla sam ko ak ay magama ki rakam nuyu mboolem koo xam ni yaa nga yeewoo plateau bàyyiwuma kenn rawatina ki nga xamante ni mooy baaba Babacar euh, nuyu ko bu baax Ndiaye euh, sàmm ko yàlla na yàlla kàttanal ko dëgëral ko borom librairie baa ngi noonu sama xarit waaye nee naa leen fu ma ko ziaree damay daal di noppi dégg Baye Mbaye doon ne mu daal di way ma daal di jël kii may waaju nuyu ak fort ci ñun. Hmm. lëmbee Sénégal ba ne leeri ay ca mungkin nonu tabarakallah neena len euh, tay la samedi 3 avril li nak du rediffusion direct la mala di jàkkaarloog euh, sama terendo euh, sama xarit sama toma sayyiduna Muhammad borom tëngee ji ngi nonu bu ngeen beugé samedi bu jot ñu daal di ñëw nii la ñu koy dooree nuyu kep ko xamni ne yaa ngi ñuy topp ni cëpp nag jàkkaarloog borom fas ki nga xamni mom moom la ñu dàkkantalee xayru naas boo duggee Fass heure dañu lay jox mburu fas nga jàkkaarloog Serigne Mansour si Jamil fas, fas mu wax la ka nga xamante ni maamam mooy xayru naas euh, arsala rabbu naas xayra naas ila naas cheikh seydi mouhamadul moustapha si jamil wala xayru euh, anil naaguma man comme safa fa waliduhu baytul wilayati ashrafa borom daara ji fan la sa mag ja dëkk mu ni sakkana dakara bi izni cheikhi walidi saidat bihi sukanu habi amani hay nuy mbollem ko xamanteni rek ab waxtu wi jotey bayyi nga lepp lo doon def ada di top waxtu wi ci oustaz mohammed bay euh, ci 97.3 euh, euh, point damay teel ibi ubbi ligne bi nak nak dama namon gaañu lol lol lol ci 88 628 078 78 di dem ba marché kasse daal di nuy nak sama bay bu baax boble eh, tabarakallah diko bege diko contane ak mbollem ko xamanteni ya nga marché kasse bayu juuf bayu juuf bayu juuf mang lay nuyu mang lay ziar bu baax baax a baax Yaquba Sarr maa ngi lay nuyu di la ziar Seydil Hadji Malick sama xolowaale <laughs> nuyu la ziar la Baye Mohamed Ñaa nuyu naa la ziar la bu baax a baax a baax ya oustaz El Hadji Malick depuis Italie sama waaju baax jooj la nabi maa ngi nuyu maam Omar Ndiaye directeur di ko ñaanal l'infatigable nee naa ko sama am Cheikh Seydil Hadji Malick bu ni woon cëpp ci dëkk bi e bu jàkkaarloog yow Njaay Jaata doo sëgg nag ndeysaan doomu maam Xadi Si ji yal na yàlla sàmm la yal na yàlla aar la jàmbaar la lool jàmbaar la lool jàmbaar la lool nee naa ko talatoo sol jees neer bu rafet talatoo sol yére bu rafet li nga bëgg mooy la sa maam Cheikh Seydil Hadji Malick waxoon rek la qad rufiat raayaatu uslubi cheyqina fa a shaa fal yumin wa man shaa ankara loolu la maam Omar Njaay daal di def ni laqad wala laqad rafa'tu raayaatu uslu bi jaddi Seydi El Hadji Malick si te mooy rajo bi nga ibbi maam Omar nee na fa man saa fal yu'min wa man ankara waaye bu ma déggee turam yi daal di firi sama ñaari loxo yi njóogu faa maa ngoog aram la kumba caam mbay mi say sa mbay naar di yaara sa mbay naar Mouhamed lu ñu wax Maodo. ay waay danaa leen wax ca faatug Maodo kii ma ndax lan. حتى عرفتم تبابي يدي جويني نور تبابي يدي جويني دغيل التهدي يا يرلي يا أسفياء يا معلم واختفاتكم كيما قد عرفتم يد جويننا يد جويننا yow xaaji maay dem na Sénégal daa yore leer diine ay waaye tubaab ya di jooy séréer ya di jooy ni noowe kabaaxu ya ñalaw ya di jooy ni noowe ya di jooy ni noowe jaar baama ay lu di xaajoo kay xàccu nabi bi mu amee sët bu mel noonu nee naa leen boo nee cëpp daal di yéeg essencerie dugg biir asfiya da ngay bég loolu ak kenn la di jambar loolu saa yu ma toogee fii daal di wax sa mbaax gi ak sa jaloore gi Mamar euh, jërëjëf euh, ndeysaan superlatif nga sa kër maam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy di nuyu bu baax a baax Mina Samb euh, ñi nga xam ne ñu ngi ñuy xool ci Facebook bi bëgg Alxaaji Mansour ñu ngi lay nuyu di la Malik, Malick as ah, man itam maa ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax di la wàcce sa wàccuwaay man xaw ma lu tax ma bëgg njoogu faama aram loo Demba Thiam sama góor gaa nga ko ay 88 628 078 Oustaz Mouhamed Mbaye xaaji Maalik lëmb Sénégal yaa sopp Seydil Xaaji Maalik sa loxo bu bisi pénce Cheikh firi raaya Mawdo ñu jëm ili yi na pey ba ca nuuru diine njorbaama xay lu la nee di xaajoo lëmb Sénégal yaa yoro leen déggal xëcc bi déggal bi Sëriñ Moustapha tuddee naa la ko. raaya Maodo nu ñuy def. ñu jëm ili na pay ba ca nooru diine waaw. ñu xool. Eh, eh, Issa Cissé. man de ki nga ba pare. Mouhamed namoon naa la déggal diine bii. roog première ci jaan ko moom ak deuxième la. Ah. idaa daxaltum di ngeen sa xilaaf ci diiwaan. waaw waaw. dégg nga loolu jaaraat fi mu ñëw ndeysaan. waaw waaw. keroog première ci jaan ko moom ak deuxième la. idaa daxaltum di ngeen sa xilaaf ci diiwaan. waaw waaw. maa ngi nuyu marché Assane. sallam maa ngi nuyu marché Sandaga a yu ma fa jaare asfiyaay la ñuy bégee itam maa ngi nuyu waa dakaar plateau maa ngi nuyu waa pharmacie Gigon gaa yi nekk foofu yëpp bu nu déggee baat bi rek di bég lool di kontaan lool waaye itam di buuxante di wootee di nuyu nag ki nga xam ne ma nga ba Italie bokk ci njàmbaaru Serigne Moustapha borom muxtafina oustaz daam Kayre oustaz Dame maa ngi lay bégee di la kontaane ma nga ba itali dinu topp ñoom Baba Diop ñëpp ay déggal Seydil Hadji Malick sama góor gi nga ne laab te diiwa waaw waaw ma mënu la dee xaajoo sama bët yi sama yaram bee <laughs> moom dañoo bëggante muy sama xarit di sama waay eh, nee naa ko maa la raw lool man boo ma bëggee dëgg mooy fitnaal ndax dama laa yàgg bëgg Mansour eh, Mansour maa ngi lay bëggee di la ziyaara bu baax a baax a eh, di la kontaane <laughs> Mohamed Mansour sama xarit numu naa la. <laughs> ndeysaan mooy gawar piir moo yore raaya diine ndeysaan ndeysaan waaji lëmbe Sénégal déggal Fatou Khalifa Malick nee na ku way lii ma ne ko kii Mbaye Kassé la ma nga dëkk Thiès ay di taalibe euh, Seydi El Hadji Malick si bëgg ma Mansour lool mën a way lool kii mooy Mbaye Kassé nag ah, di sama jaam sama jaam la sama jaam la Mbaye Kassé sama jaam la tey ngeen xam ne kenn du Malick Fawad la way bisey sambay naar tabarakallahu ay sa ca may naa ko taximaan yi may naa ko particulier yi may naa ko sama xarit yi ndeysaan si may naa leen ko may naa ko njaganjaay yi si peer yi ñëpp may naa leen ko kenn du Seydil Xaaji Maalik Ibrahima Mbodj jamiliste <laughs> xam ni dëkk bi mbayeen yee ko moom <laughs> waaw waaw mooy doxal réew de feñ talaata ca ay waay jirim looy jooy sabaaye nga nuuru diini daal sama baat bi ngay saboté dema dugal ci biir way wi di bàyyi sama baat muy duggee noonu boo tëbee tëb rek dugal sama baat Mouhamed du sotti dal bàyyi sama baat Sénégal yaa yore leer diine ay waay sa mbir leer na mel na ni jant njolloor boobu futa diwal yaa yore raayu diine xanaa xamoon ni maa raw sama waa ji Babacar Seck koo bëgg-bëgg na la yow nee naa la faw nga daal di ma bëgg ndax ki nu ma tuddee tax sallallahu alayhi wa sallam tamit kanu la tuddee tax di Abi Bakrin Siddiq mi nga xamante ni ah, mooy soppay njol makka itam di xaritu njol makka di Habib di xalil Aboubacar a ngi noonu moom képp rek donc toppoon njool màkka euh, jóge màkka dem Medinatul Munawara ba jinne yay saraxoole naan xarit bu mel nii jafe na déggal jinne ya ña ngay way njool màkk ak Aboubacar ca yoon wa euh, lanu koy kañu tërandoo sunu tërandoo kenn du moom jinne yaa ngay way jazallahu rabbu naasi xayra jazaihi rafiqayni xalaa xaymatu ummu maabadin huma nazalaha bil huda fahtadat bihim wa qad faaza man am sa rafiqa muhammadin lii hinna ababakirin sa e eh, eh, oh, oh. may naa la ko sama soppe ñu xam ki yor raaya diine raaya diine jar la dee di ma dikkee ñaar sama naa ni xaw ma foo ne xol baa ngi ma ah. man ma ne waaw rek ma daal di dem waaw bi rek ay waay waaw waaw aaji Malik sa loxo yi maam asme bañul ku ko ngañ ci diine lan moo tax ayca Mouhamed Mouhamed nuy naa la ziyaara nee ma ndeysaan sama waajaa ngi noonu fii la eh, itam eh, ñëw naa ñëw naa ñëw naa ñëw naa ñëw naa eh, ñëw naa mu ngi noonu ñëw naa daal man ñëw naa de ñëw naa ñëw naa ca 88 628 00 78. waaye li maam as wax ku koy xeeb ñu gañ a laasi lan moo tax dëggal leen baatu góor ga ca nuuru diine waaw. ñor faama la dee saar maa ngi lay nuyu di la ziar. diine sopp Seydil Haaji Malick sa loxo li lan moo tax. nee naa la mosoo dégg leen baatu góor ca nuuru diine waaw. koy fay Seydil Aaji Malik la fay démb tey laa ko fay Seydil Aaji Malik sa loxo li mam as wax ku koy xem ñu gëñe laa Njaga Njaay déggal borom Lamsaar gëllin baatu góor maa ngi lay nuyu di la ziyaare ziyaaral ma Safi Gueye bu baax a baax a baax mook Ibrahima Mbodj demi liste waa Facebook bi maa ngi leen di topp di leen kontaane bu baax a baax man dama bëgg nag sama góor gi Malick Fawad aram loo Kumba Caam boo ma ci bëggee xol rek daal di ma mere fii laa ko def lan moo tax يا يوري الليري يا يوري الليري واو واو خاتم العالم Aji Malick lëmbe Sénégal yaa yore leer diine Aji Malick njol faama jaxaay du la tiim di xaacoo déedéet lëmbe Sénégal yaa yore leer diine njol faama jaxaay du la tiim di xaacoo déedéet arab la ko ba caam mbay mi say sa mbay naar ziyaara sa mbay naar nga ne lan njol faama jaxaay du la tiim di xaacoo déedéet lëmbe Sénégal yaa yore leeri diine waaw dafa neex a dund boo ko dee dund loo stressé dama bëgg nga may bàyyil Seydil Hadji Malick bi ba nu xam ne ñëw naa tey jii mooy le 3 avril ay lii du poisson d'avril de Oustaz mu ngi nii toog ci euh, plateau bi euh, jàkkaarloo ak sama tërëndoo sama tooba euh, borom oto yi mu ngi noonu Mouhamed <laughs> borom te ngi noonu yaa oh. yore leeri diine Ah, ca heure bii sa xel day daal di dem ci moom ci waxtu wii ci sa xel day daal di dem ci moom heure bii sa xel daal di dem ci moom fii la rangoñ déparé woon ci gët daal daanu ci ay deun nañu daal xëy tagge ko mu daal di tiis lool xam nga kan la lay waxal doomi Cheikh Al Khalifa jinnuru bay ba neewoon na la amna beuyit bo xamanteni buy dox mom go daan ko xole fa man kaana yarju liqaa rabbih falyamal amalan salihan boko beugé xam moy bàyyi Serigne Abdou mi ci Riceer ki may waxal boko beugé xam di doomu Cheikh Seydil haji malik bi boko beugé xam ci di serigne kep ko xamanteni ni rek njabotu mam Cheikh Seydil Hadji Malick nga fii ci waxtu wi ci heure bi ci lañu ñu taxawoon fii ci yi ndakaaru ji jàkkaarloo ak moom xool daa di tooy lool wét daa di am lool sunu maam joojole dem bu nu demee tuuti dinaa leen wax mooy kan waaye li wér te doomu Cheikh Al Khalifa la lawla maqa jiirul xatimi ilahana Cheikh Tidiane arafu bi ma ahwi bi لا تقصرا نتوسلا وتضرعا moom laa koy may mu daal di ku ko gunge 3 avril 2019 la fi bàyyeeku woon maam Sidi Ahmed doomu Cheikh Seydi Aboubacar si waaye tey la 3 avril 2021 maam yaa ngi ñaari at ci biir suuf fii ci almeer yoo fi doon fa leer yàlla na nu sa leer daal di gunge ci barke kii Njaay Jamil di way borom géejawaay ay di soppee Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour si Jamil tey taalibe bu yëkkitee lammeñam daal di joobee Cheikhuna Ahmed Tidiane sa sago daal di jeex barzaqul baraziqi taajul aarifina sibti rasuli ridal mahmud محمود سيرته الشيخ معناه بحر فلا يعزى لخرتاسي شتجال من كل نائن نادرين أسفياء والعال وتشعشعت أدواؤها وسعاؤها شتجال وتعم بالأخطار والبلدان كم شادت عين الأخي لا إله إلا الله لا إله إلا الله Cheikh Ngok ca Tafa Al Mbeng maa ngi nuyu di la ziar Talla Gueye ah, tam ay ah, kontaane naa la ah, maa ngi lay ziar maa ngi nuyu képp koo xamante ni yaa nga Ndoomoor Jóob sama dëkku yaay sama dëkku maam nuyu ñoom Tayar Samb ñëpp ay tamit di ziar képp koo xamante ni rek a soppe Cheikhuna Ahmada Tidiane Chérif nga 88 628 0078 Cheikhu Tidiane Chérif bu ñëwee ñu jël ko في بالي هذا الذي خدنا لرضوان العلي بمنزل آيات من قرآن وحوى بمرضات العليم من allo allo waaw ku baax sang bu tedd bi léegi ñëw naa waaw xam naa dina dellu siwaat léegi day joxe pour ñu wooteel ko ay ca kontaane naa ko daal di ko ziyaara bu baax a baax Cheikhuna a Tidiane Serifa Ngok maamam nee na ko maa la yar laqad tabanna bihi xayrul bariyaati sallallahu alayhi wa sallam <laughs> baxrayni aynu inaayati Cheikhu Tidiane moo doon maamam Seydina Muhammad loxo من بعد ما من بعد ما رتب بلا حسر bu ñëwee ma daal di ko jël salaamaaleykum. aleykum salaam. maa ngi laa ziyaar ku tedd. yaa oh, maa ngi laa ziyaar sang bi. alhamdulilah. Babacar Diaw la Kër Masar. Babacar. Diaw Kër Masar. sëñ Babacar maa ngi lay bëggee tëdd la kontaane. ñu maa ngi la koy delloo bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw jafe nga de. waa gis nga damay fi mu toll nii de demb daal ci guddi. la la la la Mouhamed technicien. di ma wër ci dëkk bi di ma wër ba téye sama loxo bi nag ni ma àcc asfiya yi. Mouhamed kay boobu baax boo baax nañu moom Mouhamed moom. li mu def baax na. Mouhamed daal moo ma yenu démb ni ma faw nga ñëw. ah. daa war jàpp ba bët amul benn loolu kay bu ko bu amul yéen bu ngeen bëggee loolu ma def ko léegi léegi léegi léegi. ñi ñi ngi ziar allah kontaan nañu de. aaca kon yéen ko moom. maa ngi xool maa ngi naan lii moom tegaat na non non non yaa ngi tey la tey la 3 avril tey direct la. 3 avril laa gis waaw waaw eh, lii du gént kay sama xarit. ah macha maa ngi lay bëggee bu baax a baax. di la di la ñaanal jàmm ju bari. weer wu danger la nag. Ah, waaw waaw weer wu danger la. weer woo xam ne gaa ñi dañuy si euh, poisson d'avril nit ñi rek. dañuy poisson dañuy xëy gerte la yoo da da day waaw waaw moo tax luñ la wax day ko xoolaat daal day doo weer bi daal ngoog. moo tax moo tax ma ne xaaral ma xoolal ba xam lii poisson d'avril la wala. lii avril la le 3 avril la direct la <laughs> la neexee mën ngaa mbéj sa bopp tamit te xoolee see kontaan naa bu baax sama xarit. ay ca mu ngi noonu. Eh, ci jaajëfal naa ko daal ko kontaane bu baax waye tam ma ngi nuyu eh, sama soppe bu baax baax sama eh, babakar sek <laughs> babakar <laughs> nuyu na la man dafa am ko xamni dama ko beugal sama bop medun jeng, mo nga ba amerique ñu bokk Serigne Mansour Sy jamil muy sama xarit di sama lepp mo Papane jeng, mom dafa ma baye Papane borom italy yéen la may Cheikhouna Tidiane Chérif yi nga ne lan ki moy kan Cheikhuna Tidiane nabe mamam maa la wax abu wa Azm. Rahman Seexuna Tijaani Seexuna Tijaani mooy kan huwa qudwatun mooy reyukaay bi huwa raghbatun Seexuna Tijaani huwa u'datun delluwaakoon bi huwa umdatun Seexuna Tijaani huwa tuxfatul ixwaani Seex ki ñu sauvé àdduna ak alaaxira wa hidaaya laa ilaaha illallaah waaleykum salaam <laughs> allo Seexuna Tijaani ah. huwa qudwatun ah. huwa raxbatun Cheikhuna Tidiane huwa uxdatun delloo ko bàngoogu huwa umdatun ay boo ñëwul woon ay bu amul woon salaatul faatixi di ko rek subaak ngoon gu dégg bëccëg foofu baax na ci man de ah, waaw yaay booy maa ngi ziar bu baax ça va alhamdulilah ah yow la de ah du de ah, <laughs> baax na daal dinañ la alamaan de. <laughs> ëpp naa def kooku. yaa astuña. Ah, ah ah ah yaayu émission baa ngi kii damay jug taxaw daal di ko saluer saluer ba pare pincé tout ba kora ba pare. maa ngi nuyu ñëpp. <laughs> yaa ñu ngi lay fay ñu ngi bëgg émission bi nag. ndeysaan ñu ngi lay fay bu baax a baax. di nuyu maam Omar Ndiaye. ndeysaan ndeysaan général. waaw waaw. ak personnel Asfiya yëpp. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. di nuyu soppi Asfiya yëpp. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. njiital sunu baay baay di daan wayal. waaw waaw. ak El Hadj Moustapha Mbaj ak ñi ci topp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi ñëpp ci kaw ba ci suuf. ndeysaan ndeysaan maa ngi bëgg nag sama yaay ji ñëpp di Adja ah macha allah ndeysaan ndeysaan mu ngi koy bëgg lu bare bare bare bare bare. ndeysaan maa ngi bëgg sama yor bu nekk Castor. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ak ma jàllo. sunu yaay ñu ngi bëgg yaay yëpp daal wax dëgg yaay. waaw waaw. ñu Sala Ndiaye. ndeysaan yaa Marème Sy. ndeysaan yaa suñu <laughs> yaay ñëpp daal ñu leen di bëgge ba ci suuf sama sama yaay damaa namoon sa papa Njaga Konaate waaw boo ko ma kenn waaw waaw ah, soppee ak si maa ngi leen di nuyu wax yàlla di leen bëgge ci kaw ba ci suuf nuyul ma Baye Moussa Dieng waaw di rafet lu seen taxawaay ak ànd doole yaay ñoom madame Diop ndeysaan ak xale yi ak si yaay yëpp ndeysaan ah namoon nañu émission wax dëgg wuy ma nag waa marché Darkase. ah dañoo ñëw ci man bu yàggul. waa ni ma dañoo bëgg am ñoom tamit benn groupement. waaw boo xamante ni dooleel asfiyaay lañ koy tuddee. waaw ah baax na daal nañu yokk rek. yàlla xam na ni daanaka sax fan yi ñoo ma mayul jàmm da ngay liggéey samedi bi par force da liggéey ba ba ba Mouhamed ni ma daal yow da liggéey si. Ah, waaw mooy yoon sax nag mooy yoon liggéey bi mooy yoon. ma ne leen daal mhm. moom moom faw ma liggéey si daw gi daal bàyyi naa ko. ah waaw ñu ngi nuyu ñëpp daal di sargal ñëpp wax dëgg yàlla ci yi daw gi daal bàyyi naa ko jërëjëf jëf ma bàyyi liñ bi nag ñë ndax ñëpp ko wax dëgg yàlla incha allah aywa kontaan naa bu baax a baax a baax Pape An Dieng ah, sama xarit fi mu toll nii waa Espagne waa Angleterre ah, je ah, parle français ñoom Amadou Massata mais Seexuna Tijaan bi nga teg léegi anamu huwa tuxfatul ixwaani maa la ko wax huwa rahmatul Seexuna Tijaan yi wa hidaayatul Seexuna Ahmada Tijaan yi demba ñang na bien wa maziyatun wa niqlatul insani alajilo qad qatawul mawla tariqa shafatin mooy ban tariqa yakfi suluka bi anil burhan ñu amuloon salatul fatih nu ñuy def yadkhulu mu ñu amul woon jawharatul kamal nu ñuy def min ghayri adilla wala mu ñu amul woon ya man azhara jamila nu ñuy def mu ñu amul woon astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nu ñuy def ay cheikh al tijani ay Cheikhuna Tidiane ay Cheikhuna Tidiane ay Cheikhuna Tidiane ay Cheikhuna Tidiane mooy kan bi salaati daamat ala ayni naim wa sayyid al a'yan wa raad wirdi ma'ini la tarjaru ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay waaw sang bi maa ñëwaat Babacar Diop waaw sëñ Babacar ah ban la noonu Abdoulaye Ndiaye bi rek suñu baax a bu ci kanamee rek incha allah dina ñëw. sama sama rakk sama xarit. di ko ziar lu bari des fois daara xaw yi dañu bëgg dugg ba son dañuy déglu dañuy dañuy woote bi réseau mooy xaw a daw ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan di ziar Assane Gadji yëmbala ah. ndeysaan ndeysaan waaw di ko may son bi ah waaw mu ngi noonu Cheikhouna na da nga ne lan jeex na maa ngi koy xaar su ñëwula maa ngi duggaat léegi wée xoolal léegi rek ma may la Abdou Ndiaye bi kon baax na maa lay xaar. ayca nabi loo wax. amadou bi seen amada tijaani man kaana yagraw fala yutrat bi fatawassaxu bil aqi wa rabaani xaashaayahumul maru kaana ya ummu waay cheikh li asaasatin an zufratin bi damaani xatamal wilaaya بغل وفاس مانجي بغل كوسوب شيخنا احمد تيجاني شريف كي كي كي كي كي كي كي ما موي كوير ما مام جول ما كي كي كوير لا تبنى به خير البريات اي انا ني سوب شيخنا تيجان شريف انا ني سين خول دي ناند مان دي شيخ جاي جميل كاني لان لعصاصة عن زفرة بدماني أسفل كريم لو الخصائص نعمة فلا السلام عليكم allo salaamaaleykum yaa Ahmad Medoune dégg loolu instant bi ndeysaan yéen a ngi mel ni ku ne ci tànt sëriñ Mansour si Djamil daal di yuuxu ñaari baat wax Seexuna Ahmada Tijaani gaañaa ngi mel ni ñu ne ci tànt xalal fa mu nekk Medoune Dieng Djamil ma nga ba Amérique waaye fi mu toll nii daa mel ni mu ngi ci tàkku saanu Djamil yi toog ndax seexu na tiijaan bi waaleyna wa aleyka salaam waaw yaa Seydi waaw ak Siyahi TV. waaw waaw. waaw waaw def Daarul Habibi. waaw waaw. waaw moom laa soxla di moom laa soxla wallaahi numéro laa. ayca laa soxla man la Hadj Malick bu Tiwaawoon. ah yaa ngi nii di wax ak oustaz Mouhamed Mbaye. waaw moom la. waaw waaw moom la de. ah barakallahu man sa numéro laa soxla dama la soxla wallaahi dama la soxla. ah bul coupé ñu jox la ko bul coupé bul coupé sama tërandoo jox la ko. waaw waaw barakallahu. ayca mu ngi noonu ayca Seexuna Tijaani nga ne lan. Ahmed Seck ibnu Mohib maa ngi lay kontaane yaay nga ne wala kad waqaftu bi babika da'i qiran déggal Serigne Babacar nee na Cheikhuna Tidiane maa ngi nii taxaw ci sa bunt doon sàggan waaye fi laay taxaw li ma bëgg mi ngi ci yow Cheikh naan Serigne Babacar loo bëgg mu naan ko ñëw naa waaye dama gëlëm waay ngir lan waaye cofeel bu ma am ci yow Cheikhuna Tidiane ma adakum أخذوا اليمين بفضلكم في اليوم يكشف في عن ثقان إن لم تكن خريتنا بغياهب ظلمات دار ويلتي من فاني فلك الوصية بالنبي أوصيتها لتحرك الشيطان والليتان فأراك مصدوق مصدوق المقال ضمانة بسلامة الأخباب والأغدان ختم الولاية أسفياء يفعل bul xuloo yegg si nga bul xuloo ñëwal. Eh, ne ko yegg si nga woo le 29 yegg si nga yaa ngi le 3 avril kaay dugal. déedéet gëm na yàlla dugal rek. asalaamaaleykum waaw góore waaleykum salaam ndeysaan. Ah, waaw man day na wax dëgg yàlla ñu man tamit waaw walaay li nga xuloo ci ginnaaw àdduna bu tukki la tabaarakallahu tabaarakallahu. waaw waaw waaw le bi. jeex na maa ngi ni ñëw naa. dañ laa nam mu ma Maamane Mbaye damaa dégg lii ma ne lii du dëgg ah ñëw naa ñëw naa ma dégg la nga naan dëgg la ndeysaan ndeysaan bu la soo xamoon ni ñu koy waxee ci tubaab ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw ku la mën a xaaral ma daw je suis là aujourd'hui le 3 avril xaw ma ne leen jaayu ma leen dama jënd ci kër bi waaw waaw waaw waaw doñu jaay ma leen Maamane Mbaye mi nga xam ne ma ko laa Maamane Mbaye wax dëgg yàlla li baaxul nag waaye maa ngi nuyu technicien yooyu man damaa xacc ba su ma duggee day sonné ba jeex ñu doog ma ma dellu oh, oh, oh, aujourd'hui, tu es là, tu es là, tu parles avec moi. As, euh, wa ni ko waxe neex na ma nga ni da nga sonu ci acc bi da xati rek buma buma bu duggé fatal day solo ba jeex ma delu nek acc rek ah, ah ndaysan leeru diine ji la may ma bëgg namu la wallahi ma raw tour bi dan la ana len yalla defal ji ana madam baye wa kër ga yeb madam baye fay bax rek amel na la ci junni ci laaj bi ko laaj oh, ana ana ana yaay papa xalé yeb ma ngi leen di nuyu wallahi ñanga fa ndaysan koku wa asiyaay tët tët am auditeur bu pànk ba mel nii auditeur bi avant avant kaas après kaas waaye maa la raw maa la gën a soppaloo ndeysaan Ibba Mbodj jamiliste nee na ma oustaz euh, bu ñu fàtte ñu ngi lay seetaan di la bëggee di la kontaane Ndiaye Jamil loo wax ci Cheikhu Tidiane rutaban sammat fa sabaxta an nukuraani ah anta alladi dalal jawaaba xuluwahu Ndiaye lan moo tax adaban bi majlisi shaafi al akwaan Asfiyahi FM anta alladi cheikh xaqan atayta jawahiran ci lan yaay salaamaaleykum salaamaaleykum ay ca maa ngi ñaan ku dugg rek boo mënee wàññi sa rajo bu fekkee ni euh, euh, da nga takk écouteur nga daal di ko rocc wuyu ma 88 628 0078 ay ca نرجو القلاسة وسلامة وسلامة سيدي لا إله إلا الله النكفة آه. عذائم الأخذان نخلان جاي لي زفرة الأخشى شيخنا تجاني آه. السلام عليكم عليك السلام أسمع لك بيني نما فوني كون تيريو ميرك زيارنا لكو باخ مامين باي جميل نعرف واو واو مانجلي كونتاني بوير واي waaw ñu ngi dellu kontaan bu baax ci yow. maa ngi kontaan man itam ci yow bu baax a baax a baax. Babacar ah. Babacar Niang la Jack ah sëñ Babacar nga borom Jack Saw gën. wallaay. waaw waaw waaw waaw. ngi lay ziar bu baax waay. ndeysaan ndeysaan maa ngi la koy delloo bu baax a baax a baax. kontaan ci diine ji. ah waaw iya yéen ko moom. waaw ñoo ko moom de ah, di bég ci yow bu baax. man maa leen raw bu baax a baax a baax. di ziar Ndiaye Jamil moom suñ soppe boobu. dégg nga ko de dégg nga ko de. waaw maa ngi koy dégg de. ndeysaan ndeysaan ndeysaan grand dame Diop. dégg ci moom walaay namm nañ ko nag lool waay. waaye Ndiaye xanaa gis nga moo taxit de. walaay namm nañu kii moom yàlla na yàlla jële fii rek bañ dellu ci programme yi. Ah, waaw feebar bi daal la ngi noonu rek. waaw mu ngi noonu de. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. di ziar waa Malla yëpp nag. Malla Maase. Malla Takk. Malla Takk. waaw ak waa Mbaaru sëñ oh. Babacar Diack Sow yëpp ñu ngi leen di ziar. Eh, eh, mbaar ma gën ñaa faajaar nuyul ma leen waaye. waaw ñu lay waay baax waay waay waaye mag ñu baax te yaroo fa nekk. wallaay wallaay wallaay. waay mag ñu sell fa nekk. wallaay dëgg la moom dëgg la moom. waay mag ñu yaroo fa nekk. wallaay dëgg la de. oh ndeysaan nuyul ma leen. waaw ñu ngi lay ziar baax di ziar sama doom baay nag. al ah. al al muxadam Babacar Niang. imaam bu ko fi tuddaat de lii sama émission la. <laughs> ak Moustapha Mbaye bu leen fi tuddaat lii sama émission la ak Pape Amadou waaw waaw yéen yéen ay doomu ndey waaw Pape Amadou may naa la nga tudd ko fi moom sama rakk la sama xarit la ah Wow. waaw <laughs> Babacar Niang nag mu xadam <laughs> bu ko fi tuddaat lii sama émission la <laughs> ah kon Moustapha Mbaye moom bu ko fi tuddaat lii sama émission la tudd fi Amadou ah. rek waaw waaw kon Njaga waaw waaw Njaga Sam amul problème sama xarit la ah ñu ngi leen di ziar ak eh. soxna maam faa wax macha allah waaw kooku sama jigéen la sama xarit la waaw di leen bégge bu baax wax dëgg yàlla ay ca kontaan naa imam bu baax yooyu tam jërëjëf ñu ngi ziar bu baax a baax a baax bég naa ñëpp waa màlla yëpp bég naa waa màlla waaw waaw waaw ziar suñu sëriñ Mouhamadou Mansour Jamil ndeysaan ndeysaan bo di suñu bunta si kër Sidi Hadji Malick ak rakam yëpp Sidi Ahmed ndeysaan ndeysaan ndeysaan ziar xalifa bi di ko ñaanal wér ak gudd fa ndeysaan ndeysaan ndeysaan kontaan nañ torop macha allah ndeysaan ndeysaan ndeysaan yàlla yàlla alamin yal na yàlla yokk rajo bi. amiin yaa rabbal alamin. directeur tamit moom yal na yàlla yokk ndamam. amiin yaa rabbal alamin. ndax li muy def ci kër maamam macha allah. wallaahi ndeysaan. yal na yàlla dooleel ko. amiin yaa rabbal alamin. yàlla jërëm itam ñëpp macha allah. ndeysaan amiin yaa rabbal alamin. jërëjëf kontaan nañu macha allah. ay ca mu ngi noonu bég naa ci moom ma nga fooy woote foofu ci jàmm gën jak nekk suñu soppee loolu waaye soxna si gën ah, soxna si ah, depuis Paris di ziar waa xadra bi yëpp waa Fass yëpp di ziar Ndiaye Jamil ak Njaga Ndiaye ak sama pap Serigne Ahmad Da eh, itam ñu ngi lay nuyu itam ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax gis naa message yi euh, grande dame Diop grande dame <laughs> lay ziar nag Espagne Ndiaye Jamil damaa namoon Cheikhuna Tidiane waaw waaw xilmul judaade tamarruul wildaani hamdan liman xalqa sana min fadli bi tariqika saafi sani nuuraani وكفى الحياش دائم نعذى به نحظى به السلام عليكم وعليكم السلام يا ولا Bintu Dieng man maa ñëwaat. ah waaye yaay Bintu Diop mu baax maa ngi noonu waay. na mel gi rëy rek ba tax mënu maa tax ba wax sama tur. ah waay waay yaay maa la raw ngi leen di siyaare yéen ñëpp nag di siyaare sama baay Amar Ndiaye. mu ngi lay fay. di siyaare suñu xalifa bi di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm fan wu gudd lool te ànd ak wér. amiin yaa rabbal aalamiin. di leen ñaanal yal na yéen yàlla yeggale seen sago. ndeysaan ndeysaan amiin yàlla may leen fan wu gudd ànd ak wér gërëm yàlla barkeel liggéey bi technicien yooyu maa jël yaay pourtant ndeysaan bu buuxante euh, la rek. ak soppe sëñ Babacar si ak soxna Awa Touré mu ngi noonu toog di déglu loolu sax demal nga jënd waat nga duggaat ba wax ko sa tur ndax mu naan xaw ma kan mooy woote nii. waaw waaw waaw xam nga dugg bi sànq dafa am aal da ngaa duggee aal da ngaa daanoo leer. <laughs> dama daanu leer. waaw waaw waaw waaw ñëpp ngeen di bëggee nag. ñëpp ngeen di bëggee daanu fu nooy rek ndeysaan. boobu de yaa Seydaa ah ñu ñëwaat di ko laaj. ndeysaan wax na dëgg moom laa doon xulool noonu. <laughs> maa ngi jégalu ñëpp nag ci loolu maa ngi jégalu ñëpp di leen nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal di ko ñaanal seen njaboot. amiin rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin. ayca di ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a baax sunu xarit bu sunu yaay ju baax jooju nga xam ne itam ah, ci sunu ay soppe la bokk 88 628 00 78.

بين الماء والدين غريبان بيت الولايات مصباح الظلام ومفتاح الكنوز وختم الكل للحين بيت الولايات مصباح الظلام ومفتاح الكنوز اسمع لي مباي اسمع لي مباي نانا استاذ فون نيكون استاذ ديغي رك استاذ دالغي ني مان دال نتولني Maamar Ndiaye laay déggalu jéggalu directeur bu baax bi directeur yombul sama xarit la ndeysaan directeur bu yaru bari kër sax buy wax ak yow sax day dawale ay bëtam ndeysaan ndeysaan salaamaaleykum maa ngi laa ziyaare soxna si bu baax a baax a baax a baax macha allah ndeysaan. Oustaz Ahmed. waaw Mouhamed. waaw. man la Adja Abi Mbengue sopp na bi. ah am nga fulla maa wax loolu. taalibe sëñ Babacar Si bi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. bokk ci groupe Asfiyahi la. waaw waaw. na moon nañ la. walaay maa leen raw maa leen raw lu bare bare bare. macha allah kontaan nañu tey. ah alhamdulilah. comme que lii du poisson d'avril macha allah. <laughs> déedéet du poisson d'avril kii de. tubaarkàlla tubaarkàlla yàlla yàlla di sa fan. amiin yaa rabal alamin wala gudd fan gu ànd ak wér. amiin yaa rabal alamin tey nag moom spécial sama euh, ay yaay laay nuyu. ay ca bokk di leen bëggee. Euh, maa ngi fiy jiital sama yaa ajaarama jàll ca Castor. ndeysaan ndeysaan. taalibe sëñ Babacar Si boobu. radiyallahu taala anhu. ak sama beneen yaay. Mhm. ajaar saxaaba Diop. Mhm. saxaaba Rasoul. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. allo. allo maa ngi lay déglu bu baax a baax. sama yaa jooju saxa ajaar saxaaba Diop a Padois. ndeysaan ndeysaan ndeysaan saxaaba Rasoul. ndeysaan macha allah maa ngi koy nuyu bu baax a baax. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. di nuyu ñëpp ak Baye Ngagne Ndiaye. Baye nga Ndiaye benn la baax bëgg lu baax. ndeysaan Baye nga nuyul ma ko waaye ziyaaral ma ko. wallaay moomu. wallaay Colobane samay soppe rek a fa allah macha allah. waaw waaw ndeysaan. waaw waaw waaw waaw ndeysaan. nag sama sama sama sëriñ. ndeysaan. sëriñ Cheikh Ibnu Sëñ Mansour si. waaw waaw ak a yaru tabaax te gën. waaw waaw tabari kersa yaru macha allah. wallaay ndeysaan. macha allah. ndeysaan koy ñaanal bu baax moo ma jox wér kenn du yow tamit kenn du yow. dama kontaan lool. ndeysaan. Mouhamed di ñaanal sunu xalifa bi nag. ah Serigne Babacar Sy Mansour yàlla fan ànd ak wér. ndeysaan ndeysaan ak mboolem njabootu aj Malick ndeysaan ndeysaan kontaan rek xam nga boo duggee moom da ngay kontaan waaw yaa ngi ci biir maa ngi forcé rek mu tee ndeysaan ndeysaan macha allah maa ngi nuyu nag seen benn soppi fii Adja Dieyna ba Njoon fii Kër Massar Adja Dieyna ba Njoon Kër ma macha allah taalibe sëñ Babacar radiyallahu anhu allah nuyu na ko kontaan loolu ma ko bu baax a baax kontaan naa kontaan naa macha macha allah ay ca mu ngi noonu ku ñëw déedéet déedéet Mouhamed fi mu toll nii daf maa takk ci seen wër damay dugg si dëkk bi di la wër. ah waaw waaw mu ngi noonu de. <laughs> mu ngi noonu de mu ngi daal maam maam directeur daf maa jàpp otaas otaas. directeur daf maa jàpp otaas ni ma woo oh, mayetuma la 15 ngay manqué. abul faydi lazi ayatu kulla aqlin zaka yuni yokkal ma Mouhamed ca kaw yokkal. مفتاح الكنوز وختم الكل كصف شيخ لقجاك وبشرى لآقيزي هذا الورد كوكو من على ونالا أجرا غير ممنون بشرى لآخيزي هذا الورد سالك يا من على ونالا ay ca mu ngi noonu may naa ko sama baay euh, bu baax bu tedd boobu le nga xamante ne bi sëriñ Mansour ak sëriñ Ahmada defaree ba ni yem ba na dafa ni maa leen ci uutu ah, dinaa leen ci jàppal kéemtalaay lu ngeen mën sëriñ Ahmada nee na cummikaay baax na ci mbër waaye ci diine ji la gën a jekkee sama cummikaay sama baay papa Njaga Konaate mu baax mi sama baay nee naa ko euh, yow yàlla na nga gudd fan bu yàlla na ree wàññi say at yàlla na ci toftal sama yees asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Mohamed. waaw sang bu tedd bi. maa ngi la koy delloo. alhamdulilah. macha allah. waaw maa waa tey tey kay ñëw naa tey moom directeur daf ma daf ma daf ma daf ma téye ci code. waaw dee bàyyi naa ko bàyyi naa ko. maa ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi lay kontaane waa Sandaga waaw waa Sandaga ziar na leen. wala maa ngi leen di bégge lu bari bari bari bari jaan la ndeysaan naka waa Sandaga ay sant rek benn policier jàpp na ma fa keroog waay waaw du ko defati de waaw dootu ko defati moom policier bi jàpp ma seere ma yu def vidéo ak moom di ko foto longu ko di waxtaan ak moom <laughs> da ko jaaree ci yeneen bi rek tey am ko moom moom kay dama kaa mujj def xarit longu ko ñuy waxtaan ñu <laughs> ko kaa ñu ànd foto sa waa ji maa ngi góor a. Ah. ban. góor eh, nuyul ma ko bu baax nee ko na yokk rajo bi neel góor a oustaz nee na. waaw oh, boo paree demal ma ba ci moom. nga ne ko oustaz Mouhamed mbay nee na nga yokk rajo bi. kii du sama waa ji borom yi. ah waaye sama waaju ji waaye Mouhamed kii ya baax. kii kii ca digg Sandaga la ne nekk taalibee na xola day yokk asfiyaay bu mu sës. cët tët tët tët tët waaye loolu kay mooy El Hadj Malick la imam. lii de am naa ci mbégte kii moo ma daal. am naa ci mbégte lool lool lool allo. xanaa xamu ni daa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ba bokk ci bëggee nax ci nga koy nax. dem màkka demati màkk bëggu fay gëj da koy jaral mu dem umra bu weeru koor jotee mu daal di dem toog màkkatal mu karama bàyyi fooy fanaan mu ni xanaa jàkkaarloog kaaba gi di ko xool waa bàyyi foofu kara yu danoo sedd lool mu ni ma yëgoon ni sa tërëndoo jaral na ma ko dama juga màkk dem Medinatul Munawwara di ko ah, sama baay Njaga Konaate papa yang na sama sàmm la aar la guddal sa fan man sama bayi baay Njaga sama bayi sama compagnon de guerre sama xarit sama confident lo dund doyul Njaay ah, Konaate sama baay dundal ba doyal 88 622 0078 doo ma wëral sëñ Babacar si foofu ma jug taxaw <laughs> sëñ babakar na moon naa ko nag sëñ na رسول جاك ومنا له أجرا أجرا أجرا أجرا يغمنا له لا أجرا سيري بابا كرسينا منا له يا أجرا شرطي جنة بابا يتمنى له لا أجرا شرطي جنة بابا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله Oustaz Mouhamed Mbaye waaw sang bi Malikan Diop jaaree si eh, waa Mali ah waa Malikan yow bàyyi nga ma de musuma laa bàyyi ah Malikan bàyyi nga ma Malikan yow yaa njëkk a dugg ci émission Daaru Habibi na ne xat-xat hmm? dañuy woote saa su ne ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw ngi ah, Malikan kii moo njëkk dugg Daaru Habibi waaye yàlla xam na ne damaa bii moom dogg naa si El Hadj Mansour wax ka sama xel bii moom damay woote. ah bu ah, gis nga de di gis ah waaw. ñu ngi bu baax a baax a baax. ndeysaan ndeysaan maa ngi la koy delloo Malikan. waaw malikun adduna yëpp daarikun min maliki waaw nuyu tamit Sénégal nuyu Afrique. ndeysaan. waaw ñu yokk wéram. deux fan bi gis nañ taxawaayam. ndeysaan saan ndeysaan ndeysaan. waaw ñoo ngi koy béggee saa su ne di ko safoo saa su ne. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. du ma ne sagu tarixa bi la mais sagu diine la. ndeysaan wallaahi wallaahi wallaahi. waaw boo nee sagu tarixa bi rek day am fu mu yem. dëgg la day am frontière du am day am frontière. waaw mais sagu diine la. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaw taxawalu fi tiijaan kese mais dafay taxawal daal. umma islam yi dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la kon dañ koy ñaanal bu wér di ñaanal xalifa yëpp ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan yàlla defal leen wér ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaw di la bëggee yow nag saa su ne. yow yow ci man nga bokk yow ci mën nga bokk yow. yow ci man nga bokk. yow ñaanal nag sunu sëriñ. ñaanal bu baax moom bu baax. waaw waaw nag magam ja Mansour. ndeysaan eh, yow moom ñu lay ñaanal. di ñaan yal yàlla gën a barkeel daal. waaye yow ci mën nga bokk. waaw rajo bi moom barke bi nekk na si mais na gën a yokk. incha allahu taala day yokk sax day yokku de البرايا من التفصيل والجمل ayca maa ngi koy nuyu di ko ziare bu baax a baax Madibou Fall Madibou maa ngi laa kontaane maa ngi laa ziare bu baax a baax borom arab yi neex yooyu itam maa ngi koy ziare ma nga naan farixna bika jiddan ya sayidi shukran jazilan li xudratika Ahmed Baro Sey Madina Gunaas ah Ahmed Baro maa ngi laa nuyu maa ngi laa ziare bu baax nuyul ma waa Gunaas yëpp yëpp yëpp ziaral ma leen nuyu ab sa Touré ak Pa Ibou Diagne a nuyu Italie France Allemagne Angleterre Seydina Ahmed Mahmoud Shafi'ina wal fatih al mughlaq al masdud an milali tawassul rabbana rabbana ala khairil baraya mina بابك الأعظم المفتوح يدخل عيسى السلام عليكم Allo wa alo bu tedd bi waaw ah koku allo allo wa Alaaji Mohamed Mbaye waaw bu tedd bi allo allo wa maa ngi dégg bi ni leen ziar maa ngi la ko delo bu baakha baakha baax a baax waa di wax nañ la de. walaay ndeysaan ñoo la raw bu baax a baax a baax. kooku. ba ibu Diagne nuy na la ziarra waaye itam diko nuyu diko ziare bu baax baax nee ko sa wayjur demul ngay taxawalu ci mbedd yi fa wayjur wa tégon tànkam fanko nga ko teg maam Khalifa Sall ñaanal ko yalna yàlla yéega ko ci way wayjuram mom ak ay magam tabarakallah lég lég dang koy gis bég lool nga xamni fi seen wayjur wa tégon tànkam fa la nu teg seen tànk damay tok di xalat lég lég wayjur yi programme ba mu daan doxal mam Khalifa yalna yàlla may leen kattan yow ak sa ay mag yow ak taalibe yi ngeen mën ko taxawal mam sayyid al Hadji malik ñewat bu ngeen ko defé fi seen wayjur tëdd xolam dina sedd dina kontaan ci yéen sàllngaar yi lam tooro yàlla sàmm la yal na yàlla aar la ni kontaan nañu ci yow yal na la barke sëriñ Babacar gunge yal na la sa barke way juróo gunge waaye nag bàyyi nga ma sëriñ bi sëriñ bi bàyyi nga ma yokkal sëriñ Babacar Sylla wa innahu mursidun mursidun hadi safi ila صراطك المستقيم المبعد الخلل توسل ربنا مولاي صل خير البرايا منا تسيل سن باب كرسنا الناصر الحق بالحق بالحق المؤيد بالحق نصر الخوي بدين انفاق بالملل لا لا لا لا ربنا مولاي على خير ثم على آله rabbana haqqaqa ay ci mu ngi nonu legui legui rek mu ngi may wo mam Khalifa Sall euh, bu suñu mam aliun Sall bay aliun Sall mi nga xamanteni ay ca nelaw bu yagu rek legui rek mu ngi nan ma bu ma sañon di ngeen ma duggal ma def témoignage lañuy wax ci sunu bay sunu mam ju bax joju di mam sid Ahmed euh, mam Khalifa xam ngeen ko bu baax bax euh, bu wax da ngay fogni mam sid Ahmed la dañu nduro kaddu ñom ñaar legui legui rek ma ngi sàkku gañu buñ ko mëne duggal rek nañu ko duggal mu da def témoignage ci sunu gor gog nonu azim ya amali azimi ya, ya يا أملي عظيمي يا أملي maaleykum salaam wa rahmatullah oustaz sang tedd bi ñoo ngi jaar bu baax baax maa ngi la koy delloo maa ngi la koy delloo ah sëñ Babacar maa ngi lay ziar ñoo ngi lay ziar bu baax iya, baax ndeysaan ndeysaan waaye maa ngi la koy delloo bu baax a baax a baax a baax a baax lool ci le 3 avril bi ndeysaan ndeysaan yéen a ko moom wax dëgg yàlla ñoo ngi jaar àdduna yëpp ndaysan ndaysan ndaysan sant yalla bu baax a baax ndeysaan ndeysaan di ñaanal njaboot Seydil Hadji Malick bi radiyallahu taala anhu di wax ne kep kuy deg baaw ki si yëmbal baaw ko ci si yëmbal hmm mo ngi lay wax ne la nañu ñaanal bay ci nañu ñaanal nañu ñaanal Baye Sidi Ahmed ndaysan mam Sidi Ahmed góor gu baax la deug la yalla xam na loolu limay wax luma xam la deug la góor go xamne bo waré ñew kërëm ndaysan balang fay balanga faay ci nga fekk mu tok ci salam di la xaar ndaysan yàlla xam na loolu muy suñu maam ju baax. ndeysaan ndeysaan. yàlla yàlla leeral bàmmeelam. amiin yaa rabbal alamin. ñoo ngi koy ziar di ziar suñu Abdou ma nga xam ne wax dëgg yàlla. nam Baye Sidi Ahmed daan def noonu lay def. ndeysaan ndeysaan boo fa waree ñëw da ngay ñëw fekk mu toog di la xaar. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaye maa ngi ñu bunt ci moom muy Cheikh Tidiane Souare nga xam ne suñu doom bàjjen la. jaaga Baye Sidi Ahmed. ndeysaan ndeysaan. ñoo ngi koy jaar bu baax a baax. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ñaanalaat Baye Sidi bu baax a baax ak njabootam gi fi def. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. barke yonent bi am nañ mbégte lool. sallallahu alayhi wa sallam. ñëpp nee nañu warul di raar. ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaye damay wax ne <laughs> mënoo mënoo ñàkk bañ a teew tey parce que tey bésu Baye Sidi Ahmed la. tey bésu maam Sidi Ahmed la. yàlla xam na loolu góor gu baax la. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ndax maa ñaanal ba taay yàlla xam na loolu. ay waay macha allah. billaay wallaay góor gu baax gi noonu. wallaay dëgg la dëgg la. yal na yàlla leeral bàmmeelam. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. am na mbégte lool di ñaanal Ahmed bu baax a baax a baax. yal yàlla kontaan. na ko ñëpp ñaanal ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam ñaanal asfiya bi nga xam ne tamit wax dëgg yàlla seen taxawaay tamit ci kër maam Maodo rawatina kër bésu bay tey bésu bay Sidi Ahmed bi maam Sidi Ahmed si waral ma Njaay Jamil bi mu waay yaa Mouhamed yaa Habibi waay ma may ko maam Sidi Ahmed la 4 avril ñu dencoon ko Yoof waaw waaw fii ci almeeri Yoof yi de yàlla yàlla yërëm Baye Sidi Ahmed bu a baax leeral waxoon naa ko la maam Abdou waxoon Seydi Jamil ba mu ne de nam yaa Jamilu ñoo ngi nuyu soppe a <coughs> mu ngi noonu kontaan nañu ci moom macha allah naa sama xarit <laughs> ay yal yalla yalla wéeral soj bi fim toni ñepp lay dal di nuyu bu baax baax fatimatu Sall depuis Fass mbaw sama soppe la moom bu déggé bat bi rek ay ca day dal di lox ba du am jàlm ah, nuyu bu baax bu bakkar Touré nga xamni mom dafa sopp Serigne Ahmada assi Jamil lool lool lool lool lool lool ndeysaan ngañ geuy taxi man ngañ maa ngi lay béggee way wi nak mom lay may képp ku bëgg ndeysaan mam Sidi Ahmed euh, euh euh Assane sama doom wa wa ya muhammad mbay saw président muxtafi na jàppal ni way wi may naa ko kuy soppey maam Sidi Ahmed si jëm koo firi bégal leen ci ay waay batnu ilmun wa waa alaaji xulle maa lay nuyu maa ngi lay ziar alaaji ma nga foofu ca Sandaga di ñu bégee itam di nuyu Cheikh Diop Cheikh maa ngi laa bégee maa ngi laa kontaane bu baax a baax Abbas Kane nga xamante ne mu ngi fii ñuy defaree carte d'identité yi di ko kontaane bu baax daaf nga xam ne lu ma am rek euh, moo ca aay maa ngi lay béggee maa ngi lay kontaane bu baax a baax euh, sama xarit bu baax boobule su lay jóob kontaane naa la de ay waay masiw fi saxri mu daan dox ci xeer day marqué Mouhamed nabi dara na romb xeer yi di ko nuyu. tar bi ci sang ba foog natt weesu na ko. Grand maa ngi lay nuyu dila la ziar di la kontaane borom masque yi naa la bu baax borom ñaw yi rafet yi. ma dikkee ëpp naa def kenn du Seydil Hadji Malick sama jàmbaar gi waaye déggal yonent bi salaam may ko borom le 3 avril mam Sidi Ahmed doomu mam Cheikh Seydi Aboubacar Sy Diadji demoon Dakar daal di wéet lool. لما مام جو باخ جو سيد الحاج مالك واخون حبيب تي تبي بي مغني ادنا عليه السلام ان الجنان على التزيين يوم خدوم روحه تارك الدنيا على سلامي كن نجول مكه ايوا مطلوع المنوحك صلى الله عليه وسلم ابراهيم جاي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي قلب الليل جلبه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أجرني بالذي jël Makka Mohamed doomi Cheikh Seydi Aboubacar Sy ji borom la 3 avril fii la bàyyeekoo woon Ndakaaru waaye tamit di cëru Ndakaaru nee naa la ñaari Ndakaaru am nañu lu rëy ñaari doomi Serigne Babacar ñi ngi ci biir suuf Cheikh Seydi Mouhamed al Moustapha Maam Seydi Ahmed ñoom ñaar ñëpp di doomi Cheikh Seydi Aboubacar kii ñu tëral ko Fass kii ñu tëral ko Yoff ñuy ñaari leer o oh, oh. Asfiyahi FM leeru diine ji ak sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam eh Oustaz Babacar Niang kaay <laughs> sallallahu alayhi wa sallam bàyyi sama woy bi mu dem boo bëggee njool maak ay surprise yu garaaw ngay am da ngay sol garaam bu buy lu daa mu rafet lool boo dee reetaan leer gi bàyyi ko ca bëñ nga xam ni kenn du njool maak maxtulita xubbi fi xal bi ahadin ilaa wa xaramallahu jasaduhu min annaar may naa ko maam Sidi Ahmed doomi Cheikh Al Khalifa Serigne Babacar Sy déggal nga ni ziar naa la directeur bu ma sanctionné de <laughs> man comme igiw xoolal comme igiw montre damay tourné rek xoolal comme igiw montre damay tourné rek laa <laughs> ilaha illallah oustaz Babacar sama waaju boo ko bëggee ko koppati bu weex ngay xëy sol ñex ci Abdou ngay sol ñef ci daamine bu zone sol euh. ay yàlla menu sàkk oustaz Babacar war ngaa gërëm yonent bi <laughs> dégg nga loolu màkk boo ko bëggee day fondement ci sa xol toog njol màkk ngay bëgg yàlla di leeral sa xol bi njol màkk ngay bëgg loo wax mu doon wax ju am charisme Asfiyahi leeru diine daam kayre borom Italie maa ngi lay kontaane kilifa gaaw nekk kilifa gaaw <laughs> dégg li léeg-léeg ñu ñu junj la loo mënta leen tali Oustaz Babacar Niang amul yàlla na la sama àq da allo allo salaamaaleykum Oustaz Babacar Niang génnal studio bi waaw imaam ziar naa la. <laughs> Eh, sama téer bu baax baa ngi noonu oh, Oustaz war ngaa ñëwal nag. dama kontaan ma xëy dégg billaahi. oui oui ma ma ma rek am cofeel si yow. sëñ Mamor Mamor war ngaa ñëwal Oustaz Babacar Niang ndax moom day feeñ ci télé bi. Oustaz Babacar Niang war nga koo ñëwal. ah Mbadou. Eh, bu way bi dem de. sët tët tët tët tët lay ñaanal fanu guddi rek ak wér gu yaram. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin. daa kontaan bu baax bu ñu xëyee dégg. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. demee suñu benn xarit nag Pape Anne moo ñu woo nii sax ni Oustaz Oustaz Mouhamed commencé na. <laughs> avant ma xëy sama woo ni moom moom moom otom. ndeysaan ndeysaan Asia. oh dem na dem na dem na dem na dem na. Asia bépp daal saa ñuy kontaan ci yow. waaw ñun di ñaanal fanu guddi ak wér gu yaram. ndeysaan ñun mooy. saa suñu kontaan naa bu baax amiin wuy ma wuy ma oustaz Babacar Niang bëgg naa ngeen koy ñawal. non kay ñawal bëgg naa ngeen koy ñawal ñaw yi rafet. saa am nañu leen ah ah ah, ah moom daal dama bëgg ni. waaw ñëpp xam ni oustaz Babacar Niang kenn la ci asiyaay waaye de xam naa ba muy gone bëgg na xeex na simee ko ko yomb ay ca bég naa bég naa sama xarit eh, ana way wi Saliou Sow maa ngi lay nuyu di la ziar Moussa Sarr sama micro bi na foor waay nabi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illa allah nabi sama tërëndoo dama ko bëgg sallallahu alayhi wa sallam di ko ziare suma téer bu baax boobu lay sàll ngaari lam tooro buru gede Modou Sall hey Mamadou maa ngi lay kontaane de <laughs> la ilaha illallah astel dikko yaa imaam al anbiyaa maa ngi ñaan fu waay nekk te sopp njool makka bu fekkee ni taxaw yomb na ci yow boo jugee ñokket taxaw yàlla boo amee tànk yu métti yàlla na nga dugg ci koor gi ci bismillahi rahmaani rahim wool ko ba mu jeex ci bismillahi rahmaani rahim yàlla di la may ay ndogg ci barke bismillahi rahmaani rahim nga génn ci koor gi ci barke alhamdulilahi rabil alamin yàlla ibi bépp bunt eh maa ngi ñaan ku sopp njool màkk nga jóg taxaw bu dee mën nga ko yow bi booleew ma la ci taximan bi booleew ma ci mais képp koo xam ne daal Mouhamed ku sopp sama waaju jugal taxaw ya imam al anbiya attahiyatu lillahi ya imam al anbiya wa taqaddamta li salatin fa sallaw kulluhum muhtadin wa anta al humam ya imam al anbiya يا إمام العلبية يا النبي يا nazalat xiyaayi yaay wiir waay ñi ragal yàlla yaay lamp wali yi daamali fii ka di saal ci yow laay jokku di jàpp yomal xiyaam oh. fi xayaati fi mamaati bil ñaanalee sunu yaay ju baax jooju yaay Aysata Wàdd ko leeru njool màkka teeru ama nga ñu daal di tëral yaay bu baax la woon ay yàlla na ko yàlla xare aljana ndeysaan sukkunaa humu bi ala iliyina mu jaay wiiri da xayra mursalina yaayu ma dikke ndeysaan yaay boo ko ñàkkee rek sa benn làmp fay na yaay boo musaana wàcc yam ci moom nga dugg ci kër gi dootoo ko gisati boo solee lu tilim yaay la koy wax cay yaay grand seen kontaan naa في غلية وسجايا تعالي Siga maa ngi laa nuyu di la ziaré bu baax baax si gën soxna si gën ah, ma nga fofu ca Paris néna mu ngi mel ni ñu ngi tuwaawoon Sidi Ahmed Badiane ah, kontaan nañu bu baax baax Moussa Sarr ah, mu ngi noonu Seydil Hadji malik sama góor gi. bu ñu jógee see sét séxal khalifa serigne Babacar si eh, eh, mu ngi nonu ci 88 628 00 78 ku dugg rek ñu dal di ko jël soppé ak xaridi eh, nuyu képp ko xamni ne ngi may top ci Facebook bi. képp koo xamante ni yaa ngi topp ci youtube bi mbaa nga topp ñu ci www ñetti w la nu ma wax lasfiyahi point comme com ndaysaan maam Omar directeur mu ngi noonu yegsi na nan ñu ngi koy nuyu di ko kontaane bu baax a baax ci yar gi ndaysaan kersa gi mu amee Oustaz Babacar Niang xam naa bi nekkee gone gaawoon na xeex Oustaz Babacar arrière ko arrière ko arrière

ñi ci télé bi ñëpp a ngi koy gis ah, Asfiya yi gis nga li ma sol ni mu rafetee Mamadou Sall ko ñaw de ah, gis nga li ma sol dafa rafet lool Sall ngaari lam tooro buuru géde mooy ki ko ñaw mu daal di rafet lool ah, bu ma génnee ci mbedd yi dox nit ñi daal ne ma oustaz li nga sol rafet na ma ni leen Mamadou Sall moo ko ñaw Mamadou Sall moo ko ñaw Mamadou Sall moo ñaw moo ko ñaw tabaarakalaaw mu rafet lool Mouhamed li ma sol jàpp na ma de Sall ngaari lam tooro buuru gédee ko ñaw Mamadou Sall <laughs> sama géer gu baax googu 88 <laughs> ay waaleykum salaam Euh, Oustaz Mouhamad Mbaye waaw sang bu tedd bi. ñu ngi lay ziar ba yaa ngi ci jàmm. maa ngi la koy delloo bu baax a baax a baax a baax a baax. Pape Gueye koy wax Gandiol. Pape maa ngi lay ziar bu baax ma ah waaw bu Gandiol waaye. Euh, yow moom vraiment suñu soppe nga. Ndeysaan bu baax a baax. ñu yàggala di la siiwër. Ndeysaan wax nga dëgg. di ñëw kër Baye Basirou Dieye. waaw waaw waaw ca Gandiol. <laughs> ca Gandiol wallaay laa ziir. Ndeysaan Ndeysaan Ndeysaan Ndeysaan. ànd ak mbokk yu baax yooyu. waaw sunu Baye sa Diaw. waaw ba vraiment bàyyi yàlla yàlla leeral bàmmeelam. amiin waay amiin yaa rabbal aalamiin amiin bay kaasa di kontaan daal ñoo ko daan taxawee wax dëgg yàlla ñun action daal di bëgg a saan ndeysaan ndeysaan. waaw taaliba Serigne Mouhamadou Habib nag mooy wax ak yow. ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan. yàlla saan ma soppee boobu wax dëgg yàlla. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. di ñaanal Sidi Ahmed mi nga xamante ni tey la 3 avril moom moo ko moom. waaw maam Sidi Ahmed waaw waaw. waaw ñoo ngi ñaanal yàlla sunu borom subhanahu wa yàlla yàlla. yokk leeram ca bàmmeel ba. amiin yaa rabbal alamin amiin. baax na ci ay barkeem. ndeysaan ndeysaan arrière ko rek bi mujjee génn àdduna rek wax di yàlla da suñu gisante ak moom bariwul woon wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan jour bi ñuy toog ak moom mu ni dama am ndigal tey toog si saalu Serigne Mansour jour boobu ñaanal nañu ba ba ñu ànd ak moom photo ndeysaan a wallaay lazim ak a modeste ak a wallaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw ñu ñaanal daal ak si yaay yàlla na yàlla yokk seen xéewal ndeysaan amiin yaa rabbal aalamiin ñu gën a naalam ci kër gi yàlla eggale ko amiin yaa rabbal aalamiin ndeysaan Mouhamed ñooy kontaan di fas waaye waa waa Gandiol incha allah mu ñëwaat fa seet si leen yow kay xam nga am na ñoo xam ne dañu may seetaan direct ci Facebook bi wallaay wallaay ndeysaan Astel Dikko mu ngi naan ma oustaz Mouhamed sa sañse bi rafet na. warke alxuraan mm, ma ni ko Mamadou Sall ci jaar Sall ngaari lam tooro booru Guédé ma ngi fii ci ci ci ci caaro yi ay ci mu ngi noonu nuy waa Gandiol nee na ma li nga sol dafa rafet maa ngi nii di la xool ci Facebook bi dépp Paris ma ne ko ah Mamadou Sall fi jaar de Mamadou Sall nee naa ku mën ñëw ñëw na <laughs> waaye ku mën ku mën sol sol na <laughs> mën naa laaj ana soppay Serigne Babacar Sy yi kuy soppay Serigne Babacar bu dee dëgg saxol nel ñokkit jug taxaw nee naa leen saa yu ma ñëwee damay bëgg loxo yi di jaayu. Oustaz Dame Kayre yow ak toogal jaayu leen Abdou Aziz fan la noonu waaye ku jaay yal na yàlla faj sa e Mouhamed bisuma la de loxo yi ngeen ni ana soppe Serigne Babacar yi Abdou fan la noonu fii ci biir ci waaw nga ne lan. ana soppey Serigne Babacar. Eh, yéen ñi nekk France ana soppey Serigne Babacar yi. Astel Diko ana ñu sopp Serigne Babacar. Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar ñu magal Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar ñu magal Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar loxo yi ko mar banaani fa mbay. nuyu naa ko ziar ko Sallou Couture ah, mu ngi noonu nee naa leen ma nga caar. saxara yi boo ñëwee ba ba ba ba croisement daal di jàll nànk wëlbati ko wàcc pont bi dox mel ni ku jëm ci marché bi jégg ancien raay bi boo duggee ci marché bi foofu foo ni sàll ko tiir ñu ni la mu ngi nii ah, soppe Oustaz Mouhamed Mbaye ah, di ñëw lu rafet lool di ñëw lu tubaabee lool sur mesure moo ma ci doy Italie Espagne Angleterre fépp lay dem ci àdduna bi di yóbbu ay ñëw waaye yow bëggoo ma de yow bëggoo ma de yow bëggoo ma de ay waaru ko xamul sëriñ Babacar ay ana ah, laal nga sama garabu ndëpp de jamiil taaw la ci Abdou laal nga sama ndëpp de mil loxo jamiil taaw la ci mbay Maguette Diagne Seydi jamiil taaw la ci mbay ay waay jamiil taaw la ci mbay eh soxna si gën loxo yi ay ca jamiil taaw la ci eh ñu ci marché yi loxo jamiil jamiil taaw la ci mbay eh, góora bu sandaga góora sandaga bu dee yaa ngi may dégg góora sandaga borom tisi loxo yi ku ma ni ki mbay nga ne leen dégg wala Aziz eh, good to Dere. bakaru loxo bu gawar ku topp ca moom loxo nga ne nooy def du lu wadal nga di ko lu wadal nga di ko fër la ko wax de sëriñ Cheikh ne loxo ca bàyyi coow li bàyyi xuloo Abdoulaye lan moo ak wérete ak dajaloo loxo wax wi bañ bu daanoo daal bëgg naa nga wëral ma Pape Malick bi mu naan waajaa nga Medina bu wëral ma ko ma daal di ko tëjee liggéey bi des ndax lan adduna yeneem dafa diis xuuxuloo ñu dolli ko tey Abdou wayel waay boo xamul Serigne Babacar Gora Sarr ñoo la gën a kontaan ñu ngi lay bégee Serigne Babacar Serigne Babacar boo xamul Serigne Babacar Kumbis Diat bay jamil sëriñ la ci may eh, eh, nee na ameel naa la ñëw ma ne ko kon bul yeex mën ngaa jënd tisi bi Grand Plateau ngi waaj koor gaa ngi dugg wuy ma <laughs> bul ko waaj wala nettale sama xeex ba ma waxoon Cheikh Sarr démb <laughs> mën a kulu Cheikh Sarr de ay ay la ma woo ni ma mën a tumaatee sans bopp ndax yoroo ojo bi nga doon xeex ak kulu man ko seex kan mooy xeex di ko enregistré nag Babacar loxo ja mbayoy ku bëgg sëriñ Babacar loxo ja mbayoy ku bëgg Kumba Cam Oustaz alma ci loolu yittal na ma ah, tabarakallahu Oustaz Babacar sa addiyey tërandoo laay laaj loolu loolu nga yor ay yàlla mi nu sàkk gis ku dootul dellu Mbàkke de naa <laughs> ko dootul dellu Mbàkke Oustaz Babacar ah, Asfiyahi FM addi sëñ Babacar rajo nag dafa métti non Pape Amadou Diouf daal kenn du moom sama rakk ju baax jooju soppi Sëriñ Maodo si wa rifaatun متعة المولى شفاعة damay gërëm yàlla man bu ma nekkoon waykat oustaz ay jàng rek laa ibbi du ma du ma diriger doo bàyyi xel lool bu ma noon waykat du xam nga xam nga mooy ñooñ nga xam ne dañuy woy pour nit ñi ñëw ci tante bi bu nit ñi ñëwee ñun la joxeel a après <laughs> genre yooyu laay doon <laughs> yaa oustaz Mouhamed dañ naan ah waykat bi doon woy léegi ñu ngi koy jaajëfal tabaarakallaahu bég nanu da defee nga andal ñi nga andal ngeen dem ne ci ginaaw ngeen may jang kat bu mag bi mu ñew te man dama man duma ma nangu yooyu dama nan <laughs> damay jang jang yi bam jeex soppi sëñ bay ab man deuxième wa qati'un deuxième ya biha يا jami'a min nazratin wal khubi war rahmi <laughs> Seynabu aan borom borom borom Jurbel sama dom ju bax jooju <laughs> ay ta mu ngi nonu tay la samedi sa baye ngi ci rojo bi wa yalla anna muhammad yow nak yow sa dama japp déggal déggal li sama yaa ngoog gis nga Saba yaa ngoog xoolal bu doon dëpp ñëpp lay daaneel. Saba yaa sama gitu. dom bu jigéen maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax ma nga Jurbel ah, di ma seetaan eh, eh, bu baax a baax yaayu caane ngi noonu séeri Ibraga yaa ngi noonu ay doomi madame Mbaye jàngoog taaw ah, taaw ci yaay taaw ci baay eh, tabarakallahu bi amiin borom ñaari ñaasi numéro 11. wala min xeyrati karamin lil am am na tijaan yoo xam ne dun daanu boo sol foo gis ku sol mbasin bu weex am daamine bu zone boo doon firi bay përiyee daanu. maa ngi nuyu euh, képp koo xamante ni sopp nga euh, sunu bàyyi sunu maam euh, Serigne Maodo si da baax Eh, ñaan yalla eh, yàlla na yàlla yokki eh, fanam yàlla na yàlla guddal ko ndaysan ndaysan ndaysan mu ngi non dal tabarakallah ndaysan avec Sall Couture gaay ji daal ñoo baax déggal sama waju bax joju nga xamni fumu fekk lu bax da koy yokk sal Ngaari mom itam lam toro buuru gede ñom ñaar ñu bokku ben tour don ay cheikh Modou Sall neena ko yow li tax ma bëgg la bëgg gi nga bëgg Serigne Mansour ci jamil xamé wo ku rafet mba ku ñaaw musa Modou Sall bu ne la jàkk nga ni Serigne sëñ Mansour si Jamil la bëgg gisatul ci yow ayib lu mu yor daal di la jox ah way ah, ah way eh wuy ma wuy ma yeen ñu bëgg ñol màkk jóg leen wuy ma wuy ma il faut monter loxoy ah. ya rasulallah ala taalibe Cheikh ya rasulallah ya jara magal burdu bi ana soppe yonent bi tey eh, wàññil rajo bi xoolal ku def nii yàlla boo am soxla mu tardé fi tasu fi tasu ah. sama xel dem ci yeneen yaa rasulallah maa la wax loolu ashrafal xalqee ngoog yaa rasulallah oustaz jàpp ngoog seyduna muhammad xel yi dem mu alaaji nee na na ñu naan ñuy waxtaan nan njool màkk bakken bi daa guddoon alaaji malik ni déedéet ñooñu seetlu wunu <laughs> ñu ne alaaju Malik ñuko wax mu ni déedéet leer gee gaaw min nuri irniinihi xas zanna naziruhu isa taajjana an xat xaasa min xakami alaaju Malik neena xolal leer gi mo daan dépare ci jëbi di wàcc ci bakken bi bu sa bot gaawé da ngay fogg ni bakken bee ni sulet dedet leer gi la mais wuy ma oustaz alaaju Malik ñu def ba xam ko ya rasulallah woo ya jarama mais rasul xamoo lu tax ñu naan sunu waji ji makka xamoko xamoo ko ba tey mbagg amul droit sut njool màkka isa xaama bu mu saana daagu maa naa si dugg ci biir nit ñi am mahum daf leen ni sut bil xiyaas yi ci taxawaay koo koy euh, njool faama euh, euh, mais xam nga lu tax njool faama alaaji Malick Oustaz Babacar moo wax la benn secret mboolem ku way yonent bi da ngaa way jaloore yonent bi ci mbaax mais départ ci leer gi ba ci biir bàmmeel mennum njóogu ñu naan ko njóogu faama déggal Pape Malick ay waay ma di la way man ya rasulallah sama yaay seena bu siise de ma ngay jaayu ay ca yaay booy bay ibra ay ca baa nga madina waaw ay waay ma di la waay ma ya rasulallah woo. asel dikko kontaan naa ci yow. ana rawdu bi soxna Oumy Ndiaye eh, war leen ma rawdu bi waay. yaanu xamalu yónneen Maodo yaanu xamalu yónneen ya rasulallah woo. wax leen loolu. yaa jara màggal sama mooy kan Maodo yaa nu xamal yonen sama doom nga ba France Maodo yaa nu xamal yonen yaa rasulallah woo yaa jara màggal waa Italie nee na nu toogatunu benn place xamal yonen Maodo yaa nu xamal yonen yaa rasulallah woo Sidy Lamine Gueye jaayu leen taalibe Cheikh yi nee jaayu eh dégg nga Oustaz Babacar boo jaayoo yàlla yàlla faj sa aajo mais ma ngay génn de waaye fitra su leen waaye taalibe Cheikh yi de ci yow yaa ko waral Medina ngoog wan ma raw du mi xeeñtu xeeñ ñam mu saf ee eh, lamb da ci yow yaa ko waral yaa rasulallah woo yaa màggal wan ma raw du mi tëdd ci Madina tey ji Medina way man ya rasulallah woo mooy waañu moom ma daal di ko nuyu ziar ko yow dafa mel ni da ngay yëg Mamadou salla mbaa yëg nga ni sa tërëndoo la ñuy joobee Siri Soumaye ak Aminata yow képp am fit ah, maa ngi laa ziare bu baax a baax ah, Mamadou di la bégee yëg naa ni sa tërëndoo nga bëgg way woowu laay daanele way woowu laa koy téye foofu ba daaneel jot waaye Amina Traoré borom jëppal Amina gëj la laa dégg de Amina Traoré gëj la laa dégg nag Amina dama la gëj a dégg il faut réfléchir il faut vient de moi <laughs> j'ai parlé français comme wax leen loolu yaa jara màggal sama ndeysaan ay baat lu rek yaanu xamalu yonent mais Babacar mos naa seigne sëñ Ahmada ñu dem ay ñu dem ñu dem ben takk ay ñag ndeysaan ndaw si sénégalaise la mais kiko tak ñak la ñom ñëpp tubaab la ñuy lak ma wara jotali seigne sëñ Ahmada loolu laa lay dencal mais bi sëñ Axmada ne transitivité d'une relation man ko sëñ bi de ko def ay dogwaay loolu dafa bari de ko wàññi waxal tran ma ne tran nga ni zité ma ni zité ma ne ko waxal din sëñ Axmada ni din man ko relation wax kay noonu ngay def sëñ bi mais boo nee transitivité d'une relation ma ne ko sëñ bi loolu moom fu mu ne mu ne ma loolu mathématique la amet mu ni ciy alaaji Maalik ak njabootam gi <laughs> kenn du ñoom eh Maodo yaa ma gënal yoneen boobu <laughs> neex na ma lool de rawdu baa ngi yoneen ci beeru lamb de ci yow yaa ko war a <laughs> lii de ay ca mu ngi noonu ah, loolu la nu ma cërale woon ci waxtu ma daal di ko bégale képp koo xamante ni rek ah, soppee Seydina Mouhamed nga sallallahu alayhi wa rawatina ngay déglu fii ci Lasfiya yi oustaz Mouhamed Mbaye mu baax mi ah, borom heure bu baax bi daal leen uutu woon ci samedi bu jot heure bi ñu nekk ci voyage di déglu Aziz Ndiaye Aziz maa ngi lay bégge di la kontaane Aziz promoteur sama xarit boobu la Baye Ndiaye waaye tamit ko Cheikh Sarr jox ma ko masata yal yàlla aar la sàmm la itam ci bisu Serigne Babacar boobu nga xam ne ña ngi ko doon def keroog fee ca Zik FM nga daal di ci def participation bu rëy eh, képp koo xam ne yaa ngi ma doon topp ma am njuum te jéggal ma ko nil ne parfait bu lépp baaxee jàpp ni maam Omar Ndiaye la directeur bu baax bi nga xamante ni tey bisu maam Sidi Ahmed la ku bëgg a xam kuy maam Sidi Ahmed gan ñaa ngi ñëw léegi ci kanam jàpp ko ci solatee daal la jëm ci almeer yoof yi bu ngeen koy ziar xam tawasul bi ngeen def ci moom daal di ko jaajëfal moom mi may tëjee ci moom di sama xarit di sama soppe di sama lépp waaye di sama tooma et di sama ah, sol nijaay looy sol ci barke taha yaasin taqabal allahu rabbuna si daawatana mimma nuhibu bihi bi jaahi yaasini oto nag buy daw bay féqu ñaare ca am am na lu ci dagg mbaa essence baa ngay jeex foofu la cër bi yamoon njol faama laa déparé jaxaylu la te di xaacoy si taqabalallahu rabbu naasi daawatana mimman yuhibbu bihi bi jaah yaasin salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu tërëndoo ñu dem لا إله إلا